tay ku gis sama sama video bi xamne dama mer jena ba aan jena yow jéenaa yow lay waxal jéenaa lan moy sa problème yow jéenaa jéenaa an hersini yimbe yow rusloo nga nit ñi yow wa Kolda yi yow nga nek xalé bu no nek parental yow juddoogoo yow chaque jour ay problème nga ñuy indi ñun ñun duñu sax dem ba rus yow lan moy sa problème jéenaa am nga doon problème maada lan moy sa problème parce que damay wax olof di wax peul pour ñu déglu euh, olof peul ñu xamne xam nga ñu xam ñu xam limay wax yow xale bu ndaw yow suñu kanam nga juddoo yow suñu kanam yow nga juddoo xam sa yaay xam sa papa xam sa mag mu neen nga xam ne mu ngi sëy Dakar gi deful kenn waxul kenn kenn xamu ko yow nga juddu barki démb nga def fi bu ne weng loolu pareeguñu ci loolu nga duggaat ci leneen yow c'est quoi ton problème anna helsini waa Kolda helsini sukaaɓe rewɓe Kolda an goɗon probléme aɗa jeyna an cukale fof ngeen foɗɗare xale bu tonni yow la mooy sa problème c'est dafa jar lii xale bu ndaw nga nekk ak dëkk bi